jërë ngeen jëf mbokk internetu Leewtoo TV tey ñu am mbégte ñëw fii ci CNG ci bureau directeur euh, wala président CNG bu Bira mu dalal ñu ñu am mbégte lool jàkkaarloog moom pour euh, échanger pour waxtaan ci làmb président maa ngi lay nuyu di la remercier li ñu accordé émission bi euh, entretien bi di la bàyyi également nga nuyoog internetu Leewtoo TV. asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV. Mm-hmm. Euh, di rafetlu vraiment seen euh, ñëw fii ci bureau bi bureau CNG. di rafetlu également li ngeen di liggéey ci làmb ji. alors di leen di encourager. ndax man damaa bëgg jeunesse bu yëngatu. quand des jeunes n'est-ce pas s'activent ci benn domaine damay sawar vraiment pour jàppale leen euh, accompagner leen ci na ma mënee. jërëjëf moo tax ba nga ma wooyee tamit ma ne bon dana xat trop mais mm-hmm. comme c'est équipe jeune naa leen ko accordé dëgg la ñu lay remercier bu baax a baax ci loolu. Mhm. dinañ euh, waxtaan nag ci actualité waxtaan ci làmb ji huis euh, clos bi ak euh, li ni mel mais fi may démarrer mooy que sànq nga pare benn réunion ak promoteurs yi ginnaaw réunion boobu lan ngeen jàpp ci ci loolu bu ngeen fa jógee. non réunion nañ ak promoteurs yi. Mhm. ndaxte li jiitu loolu. Mhm. li ko sabab mooy 4 janvier dañoo defoon benn réunion. de bureau. comité national de gestion de la lutte. ñu ne woon euh, bëgg nañu comme saison baa ngi dem. Euh, le premier mars ñu démarrer activité de lutte réellement activité yi combat yi. ñu ne nag euh, mais balaay ñu koy siiwal. day rafet day teggi ñu tàggu ministre de sports rek pare. alors bi ñu defee loolu ba mu yëg ko xam ne effectivement loolu la mu ne loolu vraiment c'est c'est bien. mun ngeen a démarrer. démb ñu réunion dëggalaat loolu ne nañu organiser wu euh, pour ñu organiser nag dafay laaj ñu wax ak ñi nga xam ne moom lañ seqal làmb mooy les promoteurs ñoo ne nag kon tey nañ réunion ak waa ak les promoteurs n'est-ce pas de lutte moo tax ñu woo leen ñëw vraiment ñu waxtaanee naka la ñu demee ci huis clos ndaxte làmb ji aussi huis clos rek lañ ko mën a def ne ndax mbas mi dëgg la loolu ñu waxtaanee léegi d'accord léegi nan ngeen di demee ci huis clos boobu bon huis bi xam nga tey boo seetloo yeneen fédération ñu ngi tëggal seen làmb mm-hmm. te ñun comité national la ñu. Mm-hmm. et ñu ne booy dem ci huis clos doo am spectateur seetaan. oui mais na am ay techniciens ak acteurs directs yoo xam da ciy bokk. Mm-hmm. ñun nag ñooñu il faut ñu seet ñan ñoo war a ñëw buñ koy def. ak ñaata la ñuy doon. ñoo war a ñëw ñaata la ñuy doon. la ñuy doon. ñi war a ñëw comme yéen a teew ñu ne presse bi war na ñëw mhm. ñu ne kon presse bi ñaata ñooy ñëw ci presse bi ñuy wax benn ab lim mbër yi daañu ñëw mhm. mbër mu nekk ñu jox ko ab limi nit lu muy àndal mhm. managers yi daañ ci ñëw entraîneur daañu ñëw woykat yi aussi daañu ñëw dam lim bu ñu joxe ci woykat yi tëggkat yi batterie yi aussi daañu ñëw ñu joxe lim bi ñëw ci ñooñu. lim boobu bu ngeen defee calcul bi ñaata moo war a accéder ci stade bi. deux cent trente six personnes. maximum maximum euh, moom la ñu daa cambar fi mu ne nii. am nag un boo xam ne réserve la. mais bu ñu koy def amul benn yoon boo xam ne war na mët wala mu weesu trois cent personnes. d'accord maximum stade bi fii arène pardon arène bi vingt mille cinq cent personnes la. mais ñooñu ma ñëw mënuñoo ñàkk a ñëw maanaam c'est des techniciens. et des acteurs directs ñoom ñoom ñooy ñëw ci làmb bu ni nu ni ñëwee dañuy def test Covid wala parce que ñu ngi koy dégg ci presse. non test Covid duñ ko def parce que xam nga foofu dafa am problème. Hmm. test Covid boo koy def kan moo ko jël en charge. oui mbër yi. ñoo ko ah, jël seen bopp en charge. Hmm. wala promoteur bi wala CNG. non hmm. ñu ne daal dañ ko daal thermoflash. danañ ñëw ci bunt boobu ñi ñu nii ku ciy ñëw dañ la ko defal. boo nekkee ko suspect commission médicale baa ngi fi ñun la kaay ñu ber la wala ñu la SAMU wala leneen ñu yóbbu la fa la war a yóbbu. d'accord mais bu fekkee ndaa suspect nga doo dugg ci arène bi. d'accord loolu nag camouflage moo ñu koy moo ñu koy euh, defal. d'accord waaw léegi comme ñun ci média lañ jëngatu wax nga léegi. les <clears throat> presse bi danañ wax benn lim buy accéder ci terrain est-ce que mën xam lim boobu ak yan yan yan organe ngeen ciblé. non lim bi xam nga presse bi dafa yaatu léegi. Mhm. am na la presse na. l'audiovisuel am na même seen presse bii. et cetera bu ci nekk nag dañ koy jox benn lim ne lii mooy dugg ci presse bii lii mooy dugg ci bii lii mooy dugg ci bii. d'accord waaw. d'accord léegi ñu ñëw ci saison bi wax ngeen ne le premier mars lay démarrer. Mhm. mais avant loolu le 4 janvier yóbbu woon ngeen benn protocole sanitaire CNG. Mhm. wala mmh. ministère des sports. des lan moo tax depuis loolu euh, ouverture bi euh, traîné. waa xam nga euh, yóbbu nañ protocole bi. dem nañ également ministère oo nañu après. kaa mhm. leen ñu seet naka la pour ngeen démarrer. Mhm. mais bëgg mais effectivement lu ñu war a waxtaanee la ñu ñu waxtaan. d'accord promoteur yaa ngi fa woon amateur yaa ngi foo woon CNG ngi fa woon. Mhm. ba ñu waxtaanee mu ne léegi dama bëggoon mooy ngeen dem promoteur yi jox leen seen programme. d'accord budgétisé après yéen ngeen def ñu proposition pour ngeen démarrer. loolu lañ def. d' accord protocole bi mën nañu xam lan moo ci nekk. non protocole bi d' abord mesure barrière yi. ñu ci am na aussi li nga xam ne ñu ngi ko doon wax léegi balaa ngay dugg nga def lii ak di mhm. gel hydroalcoolique yeeg yooyu yëpp li nga xam ne moom mooy les protocoles standards. Mhm. moom moo nekk ci effectivement protocole sanitaire bi. d' accord waaw. ñu def benn euh, recul en arrière bi la fale. Mhm. quelques jours après da nga ñëw rek baisser les licences. pourquoi nga baisser les licences da la wala. non c' est xam nga. état mënul nekk di wàññi di joxe ay ndimbal. Mhm. CNG ñëw dëgëral njëndum licence te xam nañ ne atum Covid bi ñu bëri seen koom dafa wàññeeku. d'accord moo tax ñu ne nañu wàññi rendre accessible les licences d'abord les imprimer. d'accord accessibilité bi nag mu ngi ci njëg ma. mbër mi ñu wàññil ko manager bi promoteur bi et cetera ku nekk ñu wàññil ko daal pour que mu am accessibilité ci imprimé yi ci ci licence yi. loolu moo ñuy guidé pour que daal ñu wàññi ko. loolu su ma la déggee mooy que ne kon li euh, baisse bi si saison bi rek lay am bu njàllee da ngeen di revenir. non c' est déjà un acquis. acquis li nga xam ne moom nga ko pare. d' accord waaw waxuñ ne dañ ciy dellu si waat. d' accord d' accord bu ñu ko naree def aussi. dañuy woote waat ne booy léegi dañuy dañ koy dañ koy euh, yokk. Mm-hmm. du loolu lañu mosoon yokk am loo xam ne ko wàññi aussi promoteur yi licence bi mun na jar cinq cent mille bëri dóor bi mais dañu ko wàññi woon def ko trois cent mille mhm. donc loolu yàgg na fi daal wàññi yokkaat wàññi yokkaat di yàgg na fi mais pour l'heure mhm. pour le jàpp mooy wàññi nañ ko foofu liggéey ak loolu d'accord après euh, wàññi boobu tamit gis nañ ngeen lever ay sanctions mais ci lever yooyu gis nañ fi ngeen lever sanction ngeen euh, arbitre yi gis nañ fi mbër yi comme euh, Aliou Seye ak ñax jariñu mais ki taxoon coow li def am kenn sutewu ko mooy kii accompagnant à euh, kii bi euh, sa ñax jariñu hmm. kooku daa bokk ci lever sanction yi wala waaw xam nga dañ ne képp koo xam ne rek règlement daan la hmm. tey jéggal nañ la baal nañ la nga dellu si waat te bañatee def la nga defoon d'accord na nga lefoon la nga defoon bañ daan la hmm. boo ko defatee daañu la daan lu ëpp loolu d'accord waaw d' accord bi lay fay également euh, ministre bi jox na la neuf missions. Mhm. benn mission mëntaanu ko ci mooy que ne war nga atteindre wala nga war nga ci jëm ci fédération d'ici deux ans. Mhm. yaakaar nga ne di nga euh, atteindre objectif boobu. bon xam nga euh, loolu mission la. Mhm. li li ma war mooy ma liggéey ba yegg ca loola. d' accord bu ma ci yeggul te ma toll ma ne ko def suma rapport ne fii laa toll ci mission pour ñu dem ci fédération. d' accord fi nga toll instant yaakaar nga ne di nga ci li nga jotagum def. bon munuma ko mënuma ko waaw mënuma ko déet. ndaxte liggéey la liggéey bu pareegul. Mhm. équipe yi war a liggéey bu ñu koy doog a tàmbali doo mën a effectivement danaa pare balaa octobre deux mille vingt deux. d' accord dox nga cent jour jamono yële ba lay pensé. ban mhm. bilan ngay def ci cent jours yooyu. cent eh, permettre na ma ma préparer wu. Mhm. na ma ma waxtaan ak ak lu làmb. permettre ma ma am. Euh, relation étroite ak segment làmb yëpp. ndax waxtaan nañ ci ay réunion permettre na ma également ma préparer ay jumtukaay yu tax ba vraiment bu ñu démarrer. Mhm. dootuñu taxaw. d'accord démarrage boobu le première mars la le euh, lundi. Mhm. est que dañuy ubbi premier lundi rek ñu am première journée lundi wala dañuy xaar. non ba léegi amul promoteur bu ñëw ne le lundi dina tëgg. d'accord le mais am na ko ne le sept day tëgg. le sept muy mars. am na na mars 7 mars. Ah, bu ñu ubbee le premier. Hmm. am na ku ne day tëgg le 7. d' accord kon première journée mën nga ko xaar le 7 mars. waaw euh, moom sax euh, bëri simple sax lay def la wax. d' accord. Hmm. ok mais euh, ci loolu la taxaw gis nañ fi ay la guerre des dates entre Gaston Mbengue ak Samba Fall kii ne 4 avril maa ko moom kii ne avril maa ko moom. Hmm. CNG ban taxawaay la ciy def ci loolu. xam nga xam nga làmb mu bindoo noonu. xam nga promoteur day dem sax négocier làmbam fële këram. wala kër mbërëm. ba pare ba pare lépp doogaa ñëw ne CNG pare naa dama bëgg a def li dama régulariser. loolu ku nekk soo ko waxee engagé wu CNG li engagé CNG mooy. Mhm. CNG joxe gu kenn date joxu joxu kenn dat d'accord mais tout de suite. Mhm. sam euh, sam production boobu. Mhm. wax na ci biir réunion ne woy date bi daaw moo ko jëloon. mais nag li mu gis Gaston di préparer vraiment lu jéggi dayoo la. moom date boobu bàyyi na ko jox na ko Gaston loolu wax na ko léegi ci réunion d'accord du xëccoog moom loolu leer na waaw bin jàllee loolu tamit def nga benn euh, annonce ne les mercredis de l'arène danga mm. koy def maanaam chaque mercredi CNG day tëgg combat pourquoi nga def les mercredis de l'arène waaw xam nga loolu dañ ko jëlee ci réunion mm. hmm? mm-hmm. alors euh, concept boobu mm-hmm. euh, le chargé de du marketing Issa Ndiaye indi ko ci ñu validé ko de lii wooy effectivement lu mun a nekk la xam nga li ñu bañ mooy d'abord comme am na lu ñu perte ci ay weer ci waroon tëgg làmb ñu ne chaque fois que benn mercredi wala ñaar ci weer wi ñu tëgg pour au moins animer et développer la lutte sénégalaise d'accord loolu moo tax ñu tënk loolu pour que rek bañ rek ñu ne show journée bi show nañ ko quoi mhm. waaw mais mercredi bi aussi dañ koy def pour éviter ñu nag promoteur yi ñu am conflit de date. d'accord comme ñun ñooy joxe. Mhm. am na bu ñu jëlul week yi dañuy foog ne ñun dañu leen di concurrence concurrence ñun dañu leen di accompagner. c'est vrai dañu leen di encadrer. ñu ñu bàyyi leen VSD mooy vendredi samedi dimanche ñu jël ko. Mhm. même bu amee mercredi boo xam sax dañ ko jàppoon ñoom ñu ne dañ ko soxla mercredi ñu jox leen ko. d'accord parce que ñun suñu mission xëccoo bokku ci. d'accord mhm. yan lutteurs ngeen di ciblé ci mercredi euh, de l'arène boobu. non lutteurs yi foofu ñun dañu espoir nag faire la promotion des espoirs. parce que espoir yi ñoo ëpp ci làmb ji. te ñoo gën a néew lu ñuy bëri. dëgg la noonu nag dañuy jukki foofu. den tëggal vraiment ñuy bëri. dëgg tëgg làmb. Mhm. dafa ànd ak ak fond. CNG fan lay jële fond pour tëgg ay làmb. fond ah ñu def ni promoteur def uti ko <laughs> uti ko d' accord d' accord day kon daal instant yi waaw est ce que di ngeen euh, tëgg ay combat à million. je ne saurais dire mënu ko wax parce que. Mhm. xamaguma euh, suma enveloppe financière naka lay toll suma ci jubloo. mais am naa yaakaar nañ fi tëgg ay combat espoir. yoo xam ne am na solo te ku ko seetaan da ci kontaan. d' accord waaw seen première journée kañ ngeen ko prévoir. non jàpp guñ ko. jàpp guñ ko d' accord ñu dugg également ci benn euh, angle boo xam ne nii xaw na euh, taxale wala muy titre roi des arènes. Mhm. CNG yan mhm. disposition la jël pour que définitivement. Mhm. mu régler problème boobu. waaw le CNG jëlagul benn disposition pour régler problème roi des arènes. Mm -hmm. mais mu suñ tablette daañ ko waxtaanee. pour jéem a seet le titre de roi des arènes. Mhm. ban format wala benn définition ban benn acceptation lañ ciy jël. parce que aussi warul continuer nekk nii rek. Mhm. une ouverte. yaakaar nga ni mu nekkee nii dafa yomb trop pour nga nekk roi des arènes. bon du ma ne yomb na du ma ne yombul mais en tout cas CNG dana ci taxaw. def ci ab seetlu pour mun a def la définition de roi des arènes. d'accord qui doit être roi des arènes qui ne doit pas l'être et comment être roi des arènes. bu fekkee li fi nekk moom la ñuy bàyyi daañu xam dañ ko discuter bu fekkee dañuy changer dañ ko changer. est-ce que format VIP yi def benn tournoi de VIP mënul régler problème boobu. ça peut une solution. ça mun nekk solution wax waxuma boobu mooy solution bi nag. oui oui parce que li nga wax ni am na mbër bu mag bu ko doon wax keroog ci télé bi. voilà merci donc loolu yëpp. dafa bokk ci format yi ndaxte am na ñoo xam ne noonu lañ ko jëlee woon ba ñu reconnaître droit des arènes. Mmh. donc rien ne nous empêche. d'accord et rien ne nous que ñu def loolu. Mm-hmm. ñu dugg ci beneen sujet également mooy arène euh, nationale bi. promoteur lu ñu joo ci mooy que ne dafa cher. trop mm-hmm. na pour wàññi leen ko. en fait foofu euh, du CNG mooy wàññi. location arène bi. Mm-hmm. CNG mun na accompagner promoteur bi pour mu gis autorité bi nga xam ne moo ko yore. arène national bi mu ngi ci loxo ministre des sports. moom moo mun a wàññi moo mun a yokk moo mun a maye. mais CNG jox joxaguñ ko arène bi pour mu gérer ko. donc ki koy gérer moo mun a may moo mun a yokk moo mun a wàññi. mais am nga possibilité nga gisam ministère des pour que. Hmm. au moins bu ñu wàññiwul location bi sax ñu def leen par euh, jël par exemple euh, promoteur bi ñëw loué euh, hmm. siège yu rouge yi wala yu vert yi wala yu jaune yi. loolu hmm. uniquement pour wàññi leen ak ah, kii yi. loolu xam nga promoteur bi mun na ko doxee wala su defee demande bi ñu mun nañoo dox loolu pour que vraiment ñu jéem waxtaanaat ci affaire yi location arène bi. d' accord foog naa du yegg si naan ay jël siège yi wala léeg-léeg mais peut être waxtaan dans le sens ñu ne woy combat bi de combat bu yemamaay la euh, dañ bëggoon vraiment euh, bénéficier ci arène bi comme saa ngay wàññul lii ak laa ak laa ak laa loolu xëy na xel mën na kaa nangu ñu dox ko ci wetu autorité bi autorité bi tamit seet lam ca mën mu def ko ca. d'accord ñu génn ci lutte avec frappe dugg ci lutte simple. lutte simple ak huis clos moom yaakaaruma ne dina mën a nekk. yow ban hmm. xalaat nga am ci loolu huis clos ak lutte simple. boo li ma am xalaat ma am mooy huis clos lutte simple mën na ci naka lay mais mais fii ni ñu mën a tëggee fii arène nationale. Mhm. huis clos ak ba ak ak simple ak ak ak frappe. Mhm. noonu mooy ëpp tuuti. Mhm. parce que mbër yi boo calculer par exemple cent vingt huit lutteurs. bu ñu ñëwee. soixante quatre catégorie ku nekk ak ñaari ça fait déjà waaye ouais, loolu. foofu laa waxee ne mën na nekk. mais l' essentiel c' est comment occuper l' espace géographique l' espace. de l'arène ni ñu koy occuper ba. kenn kii jege na kii loolu problème yëpp bu foofu la nekk. alors mbër yi aussi bu fekkee ne loolu am na on va les organiser on va organiser le promoteur on va organiser les lutteurs mais wax dëgg yàlla du am fenn foo xam ne dañ mën a wax ne làmb ji kat respecte les mesures barrières parce que loolu on y tient huis clos en respectant les mesures barrières ça vraiment c'est la condition sine qua noonu nit ñi mën a organiser vraiment làmb Sénégal. d' ci lutte simple ba tey am na ñoo xam ne ni dañuy joytu règlement ñeneen ñi Dakar di respecter règlement village yi wala région yi région yi ci biir Sénégal duñu respecter règlement yooyu CNG euh, mhm. pour que partout à travers le Sénégal ñu respecter ñu koy respecter Dakar. non règlement bi région yaa ngi koy respecté région yi vraiment je désolé mais région yi ñu ngi respecté règlement bi. Mhm. alors su amee foo xam ne. gis nañ ne lii bokk ci règlement bi tey région bi wala département bi wala organisme mu ngi koy def bu ñu ko signaler vraiment on va faire un rappel à l'ordre ou bien on va informer qui de droit pour ne ko dorénavant da leen defee nii da defee nii da defee nii. d'accord drapeau chef de l'État Mbour la mujjee am instant yi bi ñëw. fan ngeen prévoir ban raison ngeen prévoir pour def ko. noo xam nga Drafelta amoon na Mbour après daaw ñu prévoir Kaolack. Mhm. mbas mi ñëw ñu toxal ko ñëw ñëw ñu ne nañ ko sursoir. Mhm. daañu ci ré ci réunion waat. Mhm. pour seet fan lañ koy defee yëreen incha allah. da ngeen koy delloowaat Kaolack wala. comme su ah. mooy sa dëkk. <laughs> je suis en tout cas je suis preneur. <laughs> d' ba tey am na lutte simple coach su Ambroise Sarr ba léegi xamul fu muy taxawee. Hmm. da ngeen koy reconduire wala da ngeen bëgg wut beneen. non loo loolu xam nga euh, la décision technique nationale mu ngi liggéey. mu ngi di commission bi avant-hier ñu cee waxtaan alors moom lañ jox pàcc moomu ci wàllu entraîneur yi yooyu moom mooy nommé n'est-ce pas entraîneur yi nga xam ne ñoom la sopp d'accord waaw dernière partie lutte olympique mhm. euh, lutte olympique bi sooxe na fu mu ne nii mhm. yan mesure ngay indi loolu une mesure d'accompagnement pour que mu xaw a dox tuuti waaw lutte olympique bi déjà monsieur le ministre des sports maa ngi koy gërëm di ko sant mhm. encore une fois moom euh, déjà gis na un début de solution. jël na nit koo xam ne ci la newoon. daal di ko mu nekk vice président chargé daal di olympique. kooku mm-hmm. loolu rek mooy liggéeyam. Mm-hmm. alors loolu nag ci point boobu franchement ma gëm ne kooku comme xam na ko te ci la nekk mën ko euh, dana fexe ba développé ko réunion semaine dernière. Mm-hmm. wax nañ ko rappelé nañ ko comme quoi que dina fexe ba def vraiment un programme un PTA. un plan de travail annuel. pour que ñu mën a dérouler lutte olympique bi. d'accord donc loolu ren je crois que nañ fi ay innovation pour que ñu am une bonne équipe rajeunie kon day bu di compétir ñu di ko dugal ci ay manifestations de lutte. d'accord euh, CNG ku ko xam-xam ci bénévolat la ñuy doxee est-ce que jotul ñu changer statut boobu CNG yi ñi membres yi. Mhm. ñu demee neneen nu dul bénévolat. xam nga le CNG c'est un on n'est pas une fédération et puis on n'est pas une ligue professionnelle. mouvement associatif bépp boo xam ne du professionnel rek. xam ne benn voilà lay demee. d'accord ñun c'est c'est ça aussi noonu la ñuy demee le mode de fonctionnement c'est vraiment le mode du benn bénévolat. Mhm. bénévolat nag mooy nag amul pay. Mhm. waaw was lu àq la ak aussi teg ko ci li nga xam ne moom mooy yoon. d'accord apparemment boo wàccee également da ngay ñibbi Kaolack. noonu la demee wala. <laughs> Ah waaw euh, pour la plupart su ma ci demee ñibbi Kaolack. loolu est-ce que du métti waaw dana métti mais eh, dara comme nangu naa eh, nomination bi bu méttee tamit bon du ma ko jooy fenn. Mm-hmm. waaw léeg-léeg mu fanaan fi. Mm-hmm. waaw mais fi mu ne nii sax su ngeen ñëwuloon heure yi fekk na départ naa. lan mooy si objectif pour terminer ci saison ren bi. objectif mooy tëgg làmb ju bare bare bare bare bare. Mm-hmm. te it ñi nga xam ne toog nañu de namm làmb. toog ba ne vraiment saturé nañ. d'accord teg làmb ji bëri ci jàmm ak salaam. loolu daal mooy sumu objectif objectif beneen ba mooy premier deuxième objectif mooy fexe ba euh, euh, ñu qualifié ci Jeux olympiques yi war am Tokyo. ah en deux mille vingt et loolu aussi bëgg naa ko ñaan naa ko suñu borom ñu qualifié ba pare dem am indi ay médailles d'or olympique. Mm-hmm. loolu euh, maa ko ñaan suñu borom championnat d'Afrique aussi bëgg naa vraiment bu fa demee ñu indi ay médailles d'or loolu daal. bëgg naa ko maa koy ñaan suñu borom mun na ko yàlla ko yàlla may. ak seeneen ci jeexaayu entretien bi sa dernier mot. mon dernier mot c'est encore remercier. Leewtoo TV di remercier aussi waa CNG bi yëpp l'équipe avec laquelle je travaille. Euh, di remercier également et encourager tous les promoteurs du Sénégal hein, les managers également les lutteurs surtout les pratiquants les athlètes lenn nag ne moom métti na lool waay taay métti na mais dañ gurgul rek continuer entraînement yi incha allah léegi làmb ji sàjj noonu nga koy waxee je crois bien <laughs> di ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñu defal jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm jàmmal ñëpp. jërëjëf président ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax ci disponibilité bi. mun la mhm. wooyee téléphone à chaque fois dañ lay jot te loolu mhm. yombul. ci mhm. ci président. di la remercier bu baax a baax a baax ci loolu di remercier également ñi ñu doon seetaan. Euh, internetu Leewtoo TV yi monde làmb yëpp di leen jox di dig daje yeneen i jotaay merci beaucoup.